imagine toi nga sant Thiam di seetaan série bete bété dégg Soumboulou di wax lii. fëgg sama bunt mënatumaa am dara ndax ñeeño bii ñeeño xaraamata njaay bii. yow lii lan moo ci sa réaction non vraiment série bi soo oo topp dafa mel ni nga jël waa Mbegteel jël waa Wiiri Wiiri ñëw def leen ci série bété bété la nouvelle série de Evenprod non c'est ouf. Okoro ko def na liggéey xaaral ma def vidéo bi ndax Thiam laa sant te série bi doo see gis sama li ma gën a neex ci série mooy affaire de caste la te affaire de caste dafa bëri léegi ci town bi koy takk mu ne la noo caam nga sant man Fallou Thiam dem naa fi ci takk benn xale bu jigéen mu ne noo caam nga sant non damay tooñ nag <laughs> série bi seetaan naa épisode 1 bi yaakaar naa ne tey la épisode 2 di am après mën ngeen dem ngeen xool li gën a garaaw ci série bi mooy dañoo gis saaneex bu yàgg bi saaneex bi nga xamante ni moo ñu daal dajji saaneex boobu lañ gisaat non fété fété yéex ngaa am mais bu leen fàtte yéen ñu joué Onesbet mën ngeen joué ak sama promo code 21F saa boo joué di nga am boni 156 ko def si commentaire ma ko ñu seetaanandoo seen réaction saaneex bu yàgg bi mën a fen sa doom kii c'est pas la fille de ton caleçon sama doom la man caam la sant da ngeen ñoo xeeb man mii maay bete bete juróom ñaari maam sant caam ku ñu bëgg bëgg nañ la ku ñu bëggul bëgguñu la. barke alxuraan. yow sax yow sax yow jafe eh, yow yaa ngi may bëgg a soof ah. yaa ngi a soof laa wax. kii sama doom la sama deret la. c'est ma fille aînée am naa droit di ko gis fu ma ko ma bëgg a gisee am naa droit offrir ko ay cadeau am naa droit ko. boo bu ma waxatee nga wax ni di diwa teqaleeg saaga mën. sama doom la sama doom la c'est ma. yow yaa a sama doom la sama doom la kii xam nga lu ko def sa yaay ëri sa yaay léegi day leer dafa ëri ko dem ca ba mu ba jeex nga judd ca mu bañ la ah loolu nga def maa tey kii da nga koy bàyyi force man saa neex yàlla gudd fan eh kër ga kër ga kër ga kii da laa soxlaal dara xoonam fii nga xam. juutu na ko beneen dama lay ñuus la nga juutu bi juutu bi. duul ku ñàkk fay da duul duul. <laughs> jiitoo ko non Sanekh bii lañ namoon Sanekh bi nga xamante ni day ñëw toj sans stress bii lañ amoon ñu dem xoolaat beneen partie. wax ko li ma la tontu Thiam Babel Demba Thiam. Thiam Babel Demba Thiam la ne. Oh. ba jàmm eh bu ma Thiam Babel Demba Thiam de. dama ni la duma caam Babel Demba Caam duma caam Demba duma caam Bokar caam dogo la. ah waaw mais léegi la moo nekk si caam Babel Demba Caam dama dama seetlu ko en fait ci internet bi ñu bëri genre dañuy joué que ni boo nekkee caameen rek yow duñ la may jabar wala doo ñu taq lan la lan la histoire boobu noonu koo xam dama ko dimbali ci commentaire yi parce que man je comprends pas man caam laa sant parce que man comprendre ma. wala bu fekkee dafa am caameen lu ñu defoon te ñun waxuñu ko ñun ñu sant caam tamit nañ ñu ko wax ñu dem.

wala kita xam ne. ne kii nar naa toj barki yàlla. bëgg naa nga xam ma de. ndey bis nggak ma yow di ma moytu. ndey Ndiaye. gis nga ki fi nekkoon boo xamoon tuuti wala nga fréquenté dina la wax kan moo fi jëlee rek say jër ci man bis bu la jëlalee campagne yow di nga réglé. wala sa sër yooyu ngay koy kii na ko jëppee. te xel moom fekk jaawale ko ak dof rek des na. ñëw kër jaam yow bàyyiwoo fa dara naa ma ji bu dee man ak man doo dërëx di nga dem ca xaj. ah te tamit dara du sër dara du sër xaw ma kër créé sër mais yàlla moo koy fay quoi gi daal da leen tax sër sër dafa baax. yeah dafa baax trop macha allah. I like sër. we like sër we gonna like sër dinañ sol sër. non sumbulu moom dama seetaan sumbulu su sumbulu dinaa dugg ci série dóor ko xoj de mën na jouer sumbulu mën na li muy def ok suba xa jàmm suba xa law fajar teel mu fëgg sama bunt mënatumaa am dara ah ndax ñeeño bi ñeeño xaraamata njaay bii alkaali topp ko rek naan rek mooy xaritam mënuma ci dara waaye man kenn du rax man kenn duma rax dama fess del ci sama place amul mi def fumay rax <laughs> jeulal li xolal ko toj de tax boko toje sax yima toj ci ay kaas ki ver wax deug fa yalla dafa bari <laughs> sumu la dafa bëgg wax ni mum kërëm ñeñu bu fa ñew bu lekké ci kaas ba paré <laughs> day jël kaas bi toj ko sandi ah sumu ma lu la ñeeñu yi def léegi nag mënatuma toj bi dag ma koy jëlal defal ma ci eau de javel désinfectel ma ko. Mm. dugalal ma ko laboratoire. loo xam defal boo paree ëmbal ma ko ci mbuus. takk ko ba mu dëgg teg ko bu dee salaamaaleykum rek génnal te xam ne foofu lañ koy defal ay ñamam <laughs> dégg nga ma. Eh, eh, eh, hmm. non mais mais mais mais caameen yi caameen lan lañ def dimbali leen wax leen ma caameen lan lañ def. non Soumboulou mën na jouer wax nga lu la saf nag caaneen bi am problème dinañ la xaar yàlla nga dajeeg Sanex Soumboulou ak Sanex ci série bi nar naa neex ñu dem xool Sanex ak Xisaar Sanex li mu jouer Sanex bi namoon Sanex. <laughs> tey nga dee. na de. sa baay ma gën a neex ak sa yaay ak sa ndey ñoo ma gën a neex. boo ma nee tey yaru woo ma noq la ba nga day wala ma woote waa koñ bi ñu ñuusal ma la ba nga yàq sa tubay imbécile romb ma fii nuyu woo ma nuyu bu teggi ne lu dul li ma peer ni fes ñëw sama kër heure yi sama yabaate rek yow looy moo ma jaar danga bëgg ma rey la. père sabaabu la. def lan moo si yow yow yow nga yor laxi bara mancha. laxi bara mancha da nga def. da nga wax n'importe qui. muy xool sunu lex. yow raciste nga de lan moo fi indi ay mbokk eh, bara mancha géej eh, wala. eh eh booy. lu ma fi jaar. lu tax ngay biis sama doom. mais biisu lu ci nekk. ah dara nekkul ci biis. dara nekkul ci. allo ah, sa yaay. ma biisu ko. ah wuy ma wuy ma wuy ma. rus naa sa kii ak sa béjaay mais sinon def lu soxor yow. waaw nga xamee ni damaa nga waroon fee ba sama doom ah yow daal biisu sama doom amul problème waaye pour ma biisu sa yaay am na problème <laughs> maag yow loo may wax waaye yow loo seq ak man bay biisu sama doom jama man maa ngi dem quoi sarangooñ yi nekk ci sa lu ne parce que dama jooy ci booy jooy yaay jooyal sa yaay jooyal sa yaay ak sa baay ñuy wuy ji yàlla nañu wuy ji jooy yaay ama jiitu na ko te ku ful tas ma la jooyal say parents imbécile mu naan jooy non série bi neex na série bi neex na série bi neex na non série bi neex na non like la vidéo sama gars yi like leen like leen dama bëgg chaque mercredi parce que série bete bete bi nii dama ciy gis sama bopp parce que caam laa sant série bi duma ko may dara dama bëgg chaque mercredi ma xool série bi épisode yi xool partie yi nga xam nga xam moo ci gën a xorom ma jël ko indi ko fii sama série YouTube seetaan na ak yéen ñu reetaan ba bëgg a dee kon gars yi aimé la vidéo aimé bëggatuma tey ma dugal soo dama dugal dama bëgg léegi actif actif chaque mercredi dinaa xool série bete bete dugal ko ak yéen kon like ba leen bëggee loolu di am like like like like ngeen partager mais dis-moi en commentaire yéen lan ngeen gis ci série bi série bi saa saa metteel wala saa saa wiir wiir wala lan lay lan lay lan lay saa wala beneen facette la aimer la vidéo partager kontaan naa